yoonu mucc gi yàlla tëral saa yu ngeen déggee joololi bi taxaw leen xalaat te jéem tontu ci laaj bi gannaaw loolu mën ngeen wéy ci seen déglu ñeenteelu njàngale mi yàlla moo sàkk aadama ak awa nanu bamtu nettali bi weesu benn kan moo sàkk àddina ak lépp lu ci nekk yàlla ñaar naka la yàlla sàkkee lépp ci kàddoom ñett lan la yàlla wax ci li mu sàkk nee na li mu sàkk dafa baax ñeent lan la yàlla naroon ci bi mu waxee dinañu sàkk nit mu mel ni nun ni yàlla nekkee am xel noonu la bëggee nu am xel ngir xam ko am cofeel tey def li mu wax juróom su dee yàlla moo sàkk lépp kan moo moom lépp yàlla juróom benn nit ki yàlla juróom lu tax yàlla woowe juróom ñaareelu bés ba bés bu sell ndaxte sàkk na lépp ci juróom benni fan te juróom ñaareelu fan ba yàlla noppalu na yàlla barkeel na bés boobu te woowe ko bës bu sell mbind mu sell mi nee na ci njalbeen gi saar ñaar aaya juróom ñaar aaya fukk ak juróom ba aaya fukk juróom ñett aaya ñaar fukk benn ba aaya ñaar fukk juróom noonu yàlla aji sax ji bind nit ci pënd suuf sol ngelaw dund ci paxi bakkanam nit daldi nekk borom ruu yàlla aji sax ji nag jël nit ki maanaam aadama tàbbal ko ci biir toolu ajjana bi ngir mu bey ko di ko sàmm yàlla aji sax ji sant aadama ne ko mën nga lekk ci bépp garabu tool waaye bu lekk ci garabu xam lu baax ak lu bon ndaxte bës boo ci lekkee keroog faw nga dee noonu yàlla aji sax ji ne wéet baaxul ci nit kon dinaa ko sàkkal ku koy dimbali te mel ni moom bi loolu amee yàlla aji sax ji nelawloo aadama nelaw yu xóot te ba muy nelaw mu rocc genn ciy faaram fatt fa mu ko jële ak suux yàlla aji sax ji defar jigéen ca faar ga mu jële ci aadama indil ko ko aadama ne kii daal yax la ci samay yax di suux ci sama suux des na ko tuddee jigéen ndaxte ci góor lañu ko jële looloo tax góor dina beru ndeyam ak baayam ànd ak jabaram ñu nekk kenn góor ak jabaram ñoom ñaar ñépp yaramu neen lañu defoon te amuñu ci kersa bu leen fàtte ràññee melokaani yàlla yi ci nettali bi yàlla moo sàkk aadama ak awa nettali bi mu ngi jëm ci mbirum aadama ak awa aadama ak awa la yàlla jëkk sàkk ci nit mbind mi nee na yàlla dafa sàkk nit mu mel ni moom yàlla sàkk na nit ki jëkk ci pëndu suuf si yàlla noy ci ay paxi bakkanam mu tàmbalee dund yàlla tuddee góor gi aadama yàlla sàkk aadama mu niroo ak moom ci fànn yu bare mu may aadama xel muy xalaat ak xam yàlla ak ruu guy dund ba faw mala yi amuñu woon loolu yàlla sàkk na aadama ngir mu mën a bànneexu ci leneen lépp li mu sàkk yàlla dëkkal na aadama ci ab bërëb bu rafet ci àddina si bu tudd toolu àjjana ca toolu àjjana amoon na garab yu bare ak ñam yu bare ak dex jaaroon na ci biir tool bi bi dex gi demee ba génn tool bi mu xajaloo doon ñeenti dex yu ndaw amul woon dég amul woon ñaax mu bon amul woon ngelawu suuf amul woon taw lay moo doon suuxat suuf si amul woon jàngoro te dee amul woon yàlla ne aadama mu wattu tool bi yàlla waxtaan ak aadama wax ko lu bare ci diggu toolu ajana amoon na ñaari garab genn garab ga moo doon garabu dund ga geneen ga di garabu xam lu baax ak lu bon yàlla wax aadama ne mën na lekk meññeef yi ci garab yépp waaye mënul lekk ci garabu xam lu baax ak lu bon yàlla artu ko ne bu lekkee ci doomu garabu xam lu baax ak lu bon dina dee noonu yàlla indi mala yépp ci aadama aadama wutal tur mala yépp waaye Adama amul woon àndandoo yàlla ne wéet baaxul ci nit dinaa sàkk ku koy wettali noonu yàlla nelawloo Adama dindi genn faaram sàkk ci jigéen Adama ne kii daal yax la ci samay yax di suux ci sama suux des na ko tuddee jigéen ndaxte ci góor lañu ko jële looloo tax góor dina beru ndeyam ak baayam ànd ak jabaram ñu nekk kenn njëlbeen gi saar ñaar aaya ñaar fukk ak ñett ak aaya ñaar fukk ak adama tuddee jabaram awa adama ak awa ñoo jëkk ci àddina te ñooy sunuy maam adama ak awa amuñu woon benn sikk amuñu woon benn bàkkaar ñu ngi doon ànd ak yàlla aadama ak awa soluñu woon yére waaye taxul woon ñu rus ndaxte amuñu woon benn xalaat bu bon yàlla wax aadama ak awa ñu yilif jën yi ak picc yi ak mala yépp yàlla wax leen mën nañu lekk gàncax yépp ak meññeef yépp yàlla wax leen itam ñu am ay doom te tasaaroo ci àddina yilif ko yàlla xool lépp li mu sàkk mu gis ne baax na lool fii nettali bi yem. am naa ay laaj. benn naka la yàlla sàkke nit. yàlla mu ngi sàkkee nit ci pëndu suuf si noyyi ci paxi bakkanam jox ko dund. ñaar ci yan fànn la yàlla sàkk nit mu mel ni moom yàlla may na aadama xel muy xalaat ak xam yàlla ak ruuguy dund ba faw ñett kan moo tax yàlla sàkk toolu àjjana aadama ñeent ca biir toolu àjjana ñaata garab la aadama mënoon a lekk seeni doom garab yépp ba mu des genn juróom lan la yàlla wax ne dina am su aadama lekkee doomu garabu xam lu baax ak lu bon su ko lekkee dina dee juróom benn lu tax yàlla sàkk jigéen ji ngir mu ànd ak góor te dimbali ko juróom ñaar ñaata góor ak ñaata jigéen la yàlla sàkk ca njëlbéen yàlla sàkk na genn góor rekk ci pënd suuf gannaaw gi mu sàkk jenn jigéen ci faaru góor gi kon nun ñépp askanu aadama ak awalañu lañu lu tax góor gi ak jigéen ji rusuñu woon te ñu ngi defoon yaramu nen xamuñu woon lan mooy lu baax ak lan mooy lu bon juróom lan la yàlla wax aadama ak Awa ñu def ko wax na leen ñu am ay doom te tasaaroo ci àddina yilif ko yan melokaani yàlla lañu gis ci nettali bi ak naka lañu wone melekaani yàlla yi ci nettali bi yàlla mooy boroom doole yàlla ci pënd la sàkki aadama sàkk awa ci faaru aadama yàlla dafa jub yàlla sàkkoon na aadama mu mel ni moom amul woon benn bàkkaar gépp mbaax mu ngi jóge ci yàlla yàlla wutaloon na aadama àndandoo bu baax yàlla may na aadama ak awa gàncax yépp ngir ñu lekk yàlla wutal na aadama ak awa tool yàlla may na aadama mu yilif lépp li mu sàkk yàlla ak aadama juboo woon nañu beneen yoon dinañu waxtaan ci mbirum aadama ak awa dégg yàlla